jaajëfal leen bu baax ci safoo bi ngeen safoo seen site internet bi di net bi tv li gën a fas ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek débat bi ñu doon waxtaanee foofu ca assemblée nationale ñeewal budget 2024 kii di Ayib Daffé nag nekk député ci opposition bi nag bokk nag ci coalition Yewwi Askan Wi daal dina yekk lu mel ni xamee rek kii di Macky Sall nag ak nguuram ginnaaw bu waxee na lépp lu jëkk a njaag ci biir réew mi rek moom mooy njaag démocratie bu delloo ginnaaw moom la ak ak yelleefu doomu aadama nag bu nasaxee rek nañu jàpp ne Macky Sall la ak nguuram

fukki doomu aadama yoo xamante ne rek ñàkk nañ seen bakkan eh, te ba negeen rek kenn ubbil ci enquête ba tey rek lu mu daal di waxaat moom nag moo ne nag gouvernement bu Macky Sall nag moom moom moo jël record bu fekkee ne rek wax ñu jàpp tëj jamono ji ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy détenu politique yi fees nañ dell ci kaso yi bu Afrique wërngal këpp boo xoolee Sénégal yi la mu tëj ci ay détenu politique moo ëpp foofu yeneen réew yi di kaddu yi ki nga xamante ne nag moom mooy ayib defe mu daal ci yokkaan ne mu ngay ñaaw mu ñaawlu bu baax anam bi nga xamante ne rek moom la Macky Sall yoree nguur gi ba tey rek rek mu daal di sàkku nag ci président Macky Sall nag mu indi rapport bu bon gouvernance boo xamante ne rek dafay delloo si waat ak ak fu doomu aadama fexe ubbi ab enquête rek ñeel justice bi waaye nag la mu daal di xamle waat moom ayib dafay moo di ne nag gis na li nga xamante ne rek moom la président eh, di def li nga xamante ne rek ñoom ñooy premier ministre ginnaaw rapport bi nga xamante ne rek dinañ koy eh, teg ci table ji ñeel ak ak yelleefu doomu aadama demande bu nu mel nag dafa mel ni rek du daal di yéex ndax bu fekkoon résultat yi eh, positifoon na ci domaine yëpp. maanaam daal bu fekkoon ne ci domaine yëpp kii di Macky Sall nag am na euh, ko noonu nag jarul woon sax ñuy def ab euh, boo xamante ne rek dañuy def ab bilan wala nag ñuy féliciter kii que ce soit li ba tey rek moom ayib la mu daal di wax rek moo di ne kii di li nga xamante ne moom mooy àq ak yellefu doomu aadama ak bonne gouvernance euh, jamono ji nag moom moo gën a yées sax li nga xamante ne rek moom la fi Abdoulaye Wade bàyyi woon ba tey rek moom député bi nekk jege ñaande kii di Ousmane Sonko di ayib dafay la mu daal yëkkati rek moo di na nag pour di lal li nga xamante ne nag moom mooy accusation yi nga xamante ne rek dafa ñeel nag juróom benn fukki doomu aadama yi nga xamante ne rek ñàkk nañ seen bakkan ni ki événement 2021 ba naga ni da justice bu Sénégal amul benn yoon boo xamante ne rek ubbi na ci ab enquête mu daal di yëkkati nag ñi nga xamante ne rek jamono ji ñoom lañ làq jant bi te defuñu yëguñu tiinuñu mbir mu nu mel nag nag war nañ ko càmbaraat bu baax ba tey rek la mu daal di xam ne dina reculer démocratie ak li nga mel li ci mel ni àq ak yelleefu doomu adama nag ci nguur gi rek la ko gis muy nguur rek Macky Sall ndax nag depuis 2021 ba negani rek ñi ñàkk seen bakkan ak ñi nga xamante rek jëlee nañ ci ay gaañu gaañu seen njaboot ña ngay sàkku ak enquête waaye ba tey enquête naax fraax kenn waxul ci kenn yeewu ci yàbbiwu ci ba tey rek mu daal di waxaat nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci prison ba ñu leen di mbugal te deewaguñu lim boo xamante xam ne nag lim bu takku la kii di état bu Sénégal nag mu ngi ci maye ak pat pataareem Sénégal ba Sénégal daj wala Afrique ba Afrique daj rek boo ñëwee Sénégal da ngay xam ne nag prisonniers yëpp ay détenus politique nga te loolu amul fenn fi nga xamante ne rek moom mooy ci nguurug Macky Sall lañu ko daal di gisaat mu daal di wax nag ñi nga xamante ne moom mooy ka Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye euh, Poussin Manga Olivier Boucal ak ñeneen ñi nga xamante ne rek arrêté nañ leen ak maire bi nga xamante ne député la ak ñenn ñi nga xamante ne rek placé na leen garde à vue ba nagani rek te defuñu yëguñu. ko téenañ kon nag jot na rek ñu daal di addu ci boobule dossier di kàddu ki nga xamante ne rek moom mooy Ayib Daffé jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info